mbirum humilité ak mëna a accessible ci askan wi parce que dañu fi gisoon waxuma ministre sax mais député ba conseil municipal sax ñu fal la ne maire nga sax wala conseil municipal nga wut sa 4x4 euh, vitre teintée ak autorisation spéciale express sa téléphone yi nga changé numéro yi sax euh, kenn dootu la woo ba jot la wala par whatsapp lañ lay jot lañ lay jot parce que boobu da ngay dem ba tëj sa bopp alors que askan wi boo bëggee jaamu soxla askan wi mais faw nga dem ci askan wi wala faw nga nangu askan wi mën a wax ak yow am na benn euh, benn application bu ñu génne woon fan yëpp passé au début du magistère de Bassirou Diomaye Faye pour euh, genre questionnaire pour demander aux populations lan mooy ngeen jàpp ni mooy seen priorité mais yooyu dañ ko war a continuer gën ko fësal gën ko yaatal pour permettre sénégalais bi mënul accéder directement ci premier ministre mënoo accéder directement ci sa ministre de tutelle mënoo xalaatoo accéder ci mi euh, président de la mais mu au moins benn application wala benn euh, genre sondage boo xamee ni moom mii président résultat yi da koy jot xam ne Cheikh Diop mii dëkk fële ca Kaolack Pape Ibrahima dëkk fële ca Saloum ak yeneen ak yeneen ñoom lii lañ jàpp mooy seen priorité nga mën a def le tri ak say service yi nga xamee ni ñoom ñoo ci nekk mën a def le tri ne ni sénégalais yi ñu posé question yi sur les dix huit millions de sénégalais yi nga xamee ni ñoo ngi fi au moins cinq millions yi tontu nañu léegi tontu cinq millions yi mën nañ jàpp ni mën nañ ci laaxaale dix huit millions yi mais lii lañu tontu wala lii lañ bëgg wala lii lañ teg comme priorité yow ça te permet d'avoir au moins une base de travail au-delà de ton projet ou de ton programme boo xamee ni nañ koy réadapter en fonction des besoins et des urgences directement liées au Sénégalais. Mais comme le séminaire permet au moins de rappeler à tout un chacun que ministre nga d'accord mais nekkoo ki gën ci sa domaine nekkoo ki gën a xarala mais dañ la fi teg parce que dañoo jàpp ni war ngaa mën a indi résultat ci liñ la dénk te urgence am na faw ñu jël ay ministre fal leen mais dañ leen di fàttali ni le ministre ce n'est pas une euh, nu ñu koy weeti sinécure c'est un sacerdoce au contraire du sinécure nga xam ne da ngay toog falu naa nekk ministre bon maa ngi sama kii euh, garde du corps 44 euh, euh, bureau ñu lay ubbil monsieur le ministre madame le ministre non mais da ngay jaamu soxlay askan wi et je pense que c'est dans cette optique-là que le président a a, a fait euh, ce séminaire gouvernemental comme on en voyait également sous Macky Sall comme sous euh, Maître Abdoulaye Wade loolu ci ci ci république la bokkaale. monsieur Senghor un séminaire gouvernemental boo xam ne président Bassirou Diomaye Diakhar Faye def na ko ak.